رباعي في إخدام قيل الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر نانا لي ورا واخ نانا بروم خم خام في نكون واخ نانكو بام جيخ نانا لي ورال جتاي بي داف كوي توبا نانا يك توبا ak sante sëñ Touba. ak fasiyene yéene jëfe Touba. ak fasiyene jeufandigal ak sëriñ Touba. gàttandu bisam neena nee bisam bi. ndax gan kuko ko fonk. ndax gan ku fonk. da koy gàttandu. neena bu dikke nga ganale ko. buy dem nga gungé ko. kon nag bisam bi nee bisam ko. waajal ko. moy li mooy ko xam-xam. ko xam-xam. ak alquran jàppale ko cheikh Muntaxa. nee ko ci ci liggéeyam bii nee na loolu rek moo waral jataay bii nee na te xam ne jataay bii ban ko tàmbalee ba mu jeex nee na waxuñu fi loo xam ne nee na bu leen Sëñ Tuubaa bettoon ñu rëccu li mu doon defe jataay bi nee na lépp li doon wax fi mën nañ ko wax ci kanamu Seexul Xadiim nee na génnewul xam-xam ak jafe ko nee na jàng alxuraan. ak jàngale ko. ak jàngale ko. ak soññ ñi koy jàngale. ak soññ ñi koy jàngale. nee na loolu mooy liggéeyub Seex Mamadul Muntaxa Mbàkke. dama leen di jaajëfal. nee na da leen di jaajëfal rek. di soññ nee na di soññ ñëpp. ñu maase. maase. jàppale Seex mu jàppale Seex Muhammadul Muntaxa. ci bisu Seexul Xadim bii. ci bisu Seexul Xadim bii. di gàttandu gan yep nee na di gàttandu gan di gan yep na di séentu gan ñëpp nag. ñaan sëñ Tuubaa ci ñaan ñu ci fi ci jamm fa jamm fi jamm li jaaxal ñep neena li jaaxal ñep safar bi. neena safar bi yalla safara tawadi mu dem ta duñ ko gisati. mu dem duñ ko gisati. ak tawat ju mel ni moom. nee na sëñ Tuubaa ngi koy defal. attan na ko man na ko loo ko sëf àttan na ko. nee na dina ci joxe benn misaal rek. nee na kera rek mi ngi koy nettali. nee na dafa am ku dikkoon di wax ak sëñ son bu ci mag ñi. nee na mu ne ko damaa gis yéen. nee na sëñ Tuubaa dafa mel ni fonku doon docteur. nee na te yéen sëñ son bu da ngeen di fonk docteur lan moo waral loolu nee na sëñ son bu ne ko dañoo gisatut kooka nee na kooka da daan wax ak jàngoro ji ci boppam ne ko jàngoro bàyyi diw mu bàyyi ko ndegam gisatun ko nag nee na nan ko bàyyee baatin bi daayir bi ñu xool docteur yi nee na loolu sëñ soo def njàngale mu rëy rëy la nee na kon nan sagal sëñ bi ci saahir si te baatin bi ñu bàyyee ko sëñ Tuubaa nee na loolu junj bu xóot a xóot la nee na bu ñu demee ba jamono laaj ki fi nekkal seexul xadim takk maskaam nee na loolu wane aw yoon la waaye nee na sëñ bi xam na fa mu jëm nee na ci jamono pest ba nee na pes moo gën a metti choléra bi. nee na menn mbokk dafa amee pes. nee na booba dañ lay ber ci garab. lépp di la fa fekk. nee na kenn du la ñemee jege. nee na sëriñ bu mag bi génne ci këru njaareem gi. nee na waaxu jëm ca waa ji pes bi dal. nee na kilifa la. waaye kooka. nee na kooku daal tàkk ci sëñ Tuubaa. bëgg sëñ Tuubaa lool. nee bi ko sëñ Tuubaa jubee mu ne sëñ bi bul agsi nee na sëñ bi faalewu ko rek di ñëw nee na ba jege ko mu ne ko mbàkke bul dikk dama lay bañ a sama jàngoro ji mu ne ko bàyyi ma rek mbàkke man ma dee nee na yow nga def fi mbàkke di xetti li mbindee fi nee na sëñ tubaa dikk ba ci bopp bi nee na bopp bi laal ko nee na waa nañ sëñ bi na ñokket nee yëgatul dara ci boppam nee na sawar sawar boo xamante ni bi ko jàngoro dalagu sa mësta saware noonu nee na mu ànd waaxu ànd ak Serigne Touba ba ci kër gi ne ko Mbàkke ku dee yaa ko rey ndegam man nga lii ku dee yaa ko rey sëñ Touba moomee nag du fi jóg nee na baatinam du fi jóg nee na képp kuy màggal si nee na sa pas-pas ci sëñ Touba tax ngay ñëw nee la na sëñ Touba lay gàttandu sëñ bi raayoon kooke mu tàgg ak pest ba nee baatil sëñ Bamba du fi jóg mukk ku fi ñëw moo lay gàttandu diirab li nga fi ñëw moom nga fi nekkal nee booy dellu sëñ Bamba lay gunge nee boo delloo sa kër moom nga fay nee na loolu rek la doon wax nee na sëñ wax dara ndax ndigal lii jóge ci bu mag bi suba la koy jotal nee na officiellement rek nee na sëñ bi nag naka jekk mi ngi koy digle nee na xanaa soññe rek nee na moom ba màggalug daaw gi jàlle la tàmbaliwaat waajal gii nee na mës am xalaat nee na lu du sàmm li fi sëriñ bi bàyyi ak yokk ko ak baaxal ko nee na ba bu demee nee na bu delloo ci kanamu sëñ Tuubaa mu ne ko li ma dénkoone gi nii nee na yàlla na yéex te mu yàgg fi lool nee na addi ji mu yore dikk nee na li tax mu njëkk a jox soxna Bali kado te soxna may Abdou Lahad mag fi nee na moom mii dafee teewal xalifa général de Mouride nee na moo tax mu njëkk koo jox nee na li mu gën a bëgg te bis bu ne mu xëy ko jàng nee na moom la lay dàkkal nee na def ko kadoom addi am soxna Bali nee na muy nóoru daara yi nii nee na teg ci téere bi nga xam ne Cheikh Mamadou dul a ko def te ayaatu seexul xadim nee na muy minanul baaxil xadim nee na ñaar yi daal soxna Bali mooy sa kado nee na li des nag nee na lii ay yére la yoo xamante ni nee na da koo jëme ci soxna jaara yi nee na mu bëgg soxna may laat ñëw soxna may laat ñëw ma jox ko li jëm yi nee na mu jox ko li jëm ci soxna daara yi soxna awa dem soxna awa dem ñëw ak soxna maam Marème nee na soxna si li nga joxal ko li jëm ci maam jaara yi. nee na li jëm ci daara yi soxna may jox ko soxna maam Marème mu jox ko bokki daara ci maam jaara yi. nee na addiyee soxna jaar loolu ay kaamil la. bisimilah. kon soxna may ñëwal soxna may laat waaw soxna may laat ay kaamil la ngi noonu yéen ñiy jàng ak a jàngale tey yar. nee na lii fanweeri mbubb la. nee na moo jëm ci dongay daara yi. nee na ay mbasin la ak i borooda. nee na yéen ñiy jàng alxuraan. nee na yéen a war a gën a rafet ñëpp lu ñuy sol. nee na ndax bu jàmm amee rek yéen la. nee na jërë ngeen jëf. baarakallaahu ah jërë jëf.